asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu boobu ngeen bokk yi di kilifa yi fi teew maa xalaatoon ci jamono yi nu daje waxtaan wax naa ko Cheikh Bass ci fan yële waxtaan bi nag du daal eh, bëggoon nu gën a def suñ xel ak suñ yitte ci dëkk bi ndax dëkk bi fa tabaarakallaa ñu baax ñëpp ngi fi jëm si waaye ñu bon ñëpp ngi fi jëm si loolu nag kon dana laaj taxawaay bu rëy eh, eh, bu tax eh, dëkk yi mel ni mu war a mel ci at yi ñu weesu am na sunu mbokk sunu doomi bàjjen ji fi nekkoon moom moom Modou Lo Eh, amoon yitte lool sa am ñu màndal di wusite ñu bon ñi fii dugal ak ñu bon ñi nangam nangam yooyu yëpp wax dëgg yàlla góor loolu la ci woon waaye nag ci jamono yee maa ko ne daal léegi na nga tëye sa loxo na ngeen toog ndax baat de su ko bokk sécurité bi benn rek lañ mën a doon kon na toog daañu seen nañuy waxtaaneek ak nga xam ne ñoom la fa yàlla teg ci ñor lool moom loolu laa ko waxoon gannaaw bi laa doon wax daal Bas ne ko daal loolu xalaat naa ko bàyyi ko ci moom xam naa moo waral nag tey mu jàppoon bis bi moom mu war fi kon nag loolu rek la noo ngi ciy am sant gu rëy ci teewaay bii ngeen teew yitt ji ngeen am jóg gi ngeen jóg ñëw ngir loolu moom noonu ci ñu ci yey sant yàlla bu baax ak ci am mbégte di leen sant na ci gërëm kon noonu rek la yàlla def na sax ba ci fan yu bërkaati démb rek xanaa euh, jot na ma mm, bi ma jotee nag wax ko nii mu daal di mu def ci yitte lool ne ma nag loolu dama koy daal di wax Moussa Fall dama ko waxee naa si dinañ si dinañ si daal di jublu fekkoon na njataay bi ñu ne xalaat ji jiitu woon waaye fekk na loolu dugg ci biir ji lu jiitu jataay bi kon mm, waaye yéen alaakulaa mm, noo ko bokk. ñoo ko sëq moo fi nekk kon nun war a ànd eh, eh, gën a xool teg suñu bët ci dëkk bi gën a gën a def suñu yitt yi dëkk bi ba mel ba mel ni mu war a mel ni mu war a yàlla dong la ci biir fu mu jaamu yàlla rek fu mu jaamu yàlla jaamu gu sell man faa yar nit bu sell seen diggante seen borom loolu dong moo tax mu sañ ci dëkk bi fii ñëw dafa xuus ba ñëw fii am na ay fan kenn gisu ko mën a ci àll bi te loolu dong ko taxoon a jóg fu mu jaamoo yàlla képp xam la fa yàlla yar fi yar nit ñi ci yàlla gindi leen ci yàlla womma leen jëme leen ci yàlla loolu dong ko fi indi woon loolu nag ba léegi tey tey tey tey jii dañ ko gën a bëgg ba dëgg la dem na bàyyi fi bàyyi bàyyil na fi loolu waaye nag itti jooyee tey nun itam noo fas yéene nekk ci loola te te te te te te gën a gën a bëgg la fi bëggoon nag te war a bëgg rek nag suñ kem kàttan loolu nag liy wér mooy ni ma ko waxee woon rek baat di su ko bokk duñ ci mën a jéeme jéem ci suñu yitte boobu di ci cem fajal seen bopp suñu bopp dara loolu moom laa moom laa moom moom laa dogale ndax moom loolu ci noo ngi ci woon ñu ngi ko doon xalaat waaye loolu moom maa maa ko dogale ne baat de su ko bokk kon sécurité bi benn rek lay mën a doon kon nag loolu moo waral jataay bi nu ngeen xamee ko noonu xam ne eh, lépp lépp dëkk bi eh, bàyyee nañ leen ko de ñoo leen ci déglu itam ngeen dimbali ci seen kem kàttan lu ngeen ci def yàlla rek ndax yàlla ngeen ko defal ndax seen tubaab yàlla rek ku fi andi woon eh, boolewul ak dara yàlla loolu kon lu fi waay def ci lu baax yàlla nga ko defal te yàlla lay fay kon loolu rek bar yooyu kàddu yooyu rek laa bëggoon nu daje eh, waxtaanee ko euh, ngen jëlee ko ci man xam ne noonu mbir yëpp noon rek la demee daal moom mm, lépp yéene ko dëgg la yéene ko moom waaye bàyyee gën len leen gën leen ko bàyyee waaw ci déglu itam nag waaw di ci ànd ak yéen nag ci bëgg nag rek ci bëgg rek ci bëgg rek ci mën a ci ànd ak yéen ci bëgg rek dëkk bi mel na war a mel waaw ci lu baax rek nag soxlu ci dara njubadi ñu ñu bàyyi leen xel ee, nit ñu yàqu ñi ñu bàyyi leen xel nit ñi nga xam ne dañuy yàq it ñu bàyyi leen xel yooyu yëpp ñu ngi ngi ngi jëf ci dëkk bi waaw kon ngeen dimbali na ci loolu daaw loolu seen seen cër la seen liggéey la ee, te te te bëgg nañ ci bëgg nañ ko mën na koo ñàkk yéen ñi fi yàlla def nga xam ngeen yéen am taw fexe ñëw fii ci ci sëñ ci ñëw fi sa sëñ Tuubaa ngeen góor ji góorgóorlu lu baax a baax lu ngeen ci def rek yàlla ngeen ko defal ndax suñ Tuubaa boolewul ak dara yàlla kon lu ngeen fi def ci lu baax rek lu baax dëkk bi lu baax dong moom lañ ko sañc ba mu agsi bii kon nag lu ngeen ci def ci lu baax rek yàlla da ngeen ko defal yàlla leen di fay ngeen jëf loolu

noo bokk liggéey bi noo bokk Sëriñ Tuubaa waaw noonu rek